Mor Mbengue maa ngi lay nuyu. voilà Mor Mbengue nga nekk coordonnateur bu conseil local des pêches artisanales de Kayar euh, déjà ma lay interpellé ci jàppante yi amoon ci diggante euh, nappkatu mbooro yi ak tamit nappkatu Kayar yi euh, ba gis nga drame bi nga xam ne moo si daal di am pour yow mbir mi lan moo ko indi exactement. waaw mbir mi li koy indi moom mooy dèjà jafe-jafe bi nga xamante ne am na si ñàkk ak génn gi mais aussi Kayar ku ne xam na ne ñoom dañoo dëkk di def la ñuy wax bon gestion des ressources. mu bëri ay règlement yoo xamante ni bien avant état di ko jël ñoom jëloon nañ ko état aussi ñëw dëgëral ko si benn code de la pêche mais aussi dëgëral ko si ay arrêté yoo xamante ni yi ministériels la yi ay arrêté préfectoral Euh, loolu nag bokkoon ci li nga xamante ne ñun moom lañ doon appelé suñu dëkk bii ñu dëkk muy Kayar euh, ku ne xam ne Sénégal euh, loolu ñu naan le ressources naturelles appartiennent au peuple loolu dëgg <laughs> kenn ku ne fa ngay yëngatu fa nga mën a taxaw pour aar la ngay liggéey léegi nag am ñoo xam ne dañuy jógee Mboro ñëw li nga xam te ne moom la ñuy yàqatal ñoom ñu jël décision yàq ka ak di ay monofilament dañ koy tere ot bi tere naka ñun tamit dañ koy tere loolu nag bi mu amee ñun kalaame nañ kilifa yi ne ci réew mi yëpp mais kenn jëlu say matuwaay alerté nañ leen tamit jamono yi nga xamante ne ñoom ñu dëkk Mboro ñu ngi ñëw di menacer gaali gaar ay yor ay jaasi ak i arme ñu alerter leen pour ñu jël si ay décision mais kenn jël si benn ah, décision ba jamono yi paase ginnaaw am ñu tëmb dem dem surveillance jàpp gaali mboor indi leen Kayar ñoom waa mboor ñu def délégation ànd ak le comité national de gestion des conflits ñu delloo leen matériel yi ndekete boobu ñoom tamit réunion nañu pour attaquer waa Kayar yi waa Kayar yi ñu si dara ñu dem géej gi natt fa ñuy si jamono yooyu loolu di am na ñoom koo xam ne mënu woon a fii responsabilité bi si yéen la féete mooy pêcheuru Kayar yi que yéen a tooñ yéen seen géej moo amul jën euh, ngeen ñëw yéen a tooñ daal mbir mi lépp yéen a ko waral. waaw xam nga loolu noonu ñoom dañoo xam nga ko def déli li ngay njëkk a mooy pexe noo ci génne moo waral léeg la ñu utiliser yenn propos yi. mais ñoom bu ñu yemoon seen zone Mboro ñun maanaam du ñu mos a am ñoom jafe-jafe parce que Kayar ma fàttali ni mi ngi au mi ngi yem au vingt huit benn jamono bu ñu tooñee ñoom dañ doon ñëw di safeen moom la fa yaay maay xam nga vingt huit kilomètres au nord ñu ñu mooy mooy seen limite ñoom ñu jóge vingt huit kilomètres ñëw ba cinq kilomètres au sud de Kayar ça veut dire que ni c'est plus de trente trois kilomètres yoo xam ne ñoom ñoom romb nañ ko seen i zone pour ñëw bii zone Kayar bi nga xam dañ fiy tere monofilament fi def léegi nag comme dili am na taal nañ ay nit te ñi nga xalaat dinañ dee yeneen di sem il faut ñu fonu fonu fonu wala ñu référé ay texte ak règlement yoo xamante ne si. Mhm. réew mi moo ko régir pour pour pour def la ñuy def lépp amul benn yoon boo xamante ni dem nañ attaqué ji nit pour gaañ ko wala dara parce que bi ma fàttali ne bi téye seen gaal yooyu noonu trente un personnes lañ fi indi trente un personnes dañ leen kenn dara arrivé wu bi attaque di am ñu taal ay nit am na benn monsieur Mboro ba xam waa Kaar yi récupéré nañ ko indi ko mais xoosuwul mhm. te bis boobu fekk na ñu taal vingt sept personnes Kayar kon bu fekk na waa Kayar dañoo fautif dañuy dañuy fayu mais defuñu euh, fi ñu toll nii est-ce que euh, lan mooy situation bi foofu ca ca ca Kayar est-ce que mbir yi waaw situation bi nekk ni moom mooy déjà bal hmm. parce que loolu lañ mos a woon mooy képp koo xam ne dañu jafe-jafe beneen bi ci des aussi ñu xool nan lañ mën a def aussi ba ñi nga xamante ne am nañ ay yàqu-yàqu ko mhm. taal sama station carburant saccagé nañ ko. Mhm. kon amul si koo xamante ne affaire bi mucc nga si bi da ngay dégg léeg-léeg ñu ni matériel yi waa waa ndar lañ yàq non yàq nañ matériel yi waa ndar am na parce que gis naa ay matériel ndar yu yàqu mais li ma gis si matériel Kayar mu yàqu tamit bëri na lool parce li boo demee site de transformation bi nga xamante ne moom la suñu yaay di di di di loolu gerte kese c'est plus de quatre nga ñëw mu dégager de Kayar c'est plus de c'est plus de quatre cent millions na mm. ni ci déplacement da xam ñu bëri nag jàpp nañ ni euh, Mor Mbengue mbir mi li ko waral aussi euh, fond problème bi moom mooy géej gi euh, dafa amatul jën moo andi lii yëpp est-ce que da koy dëggal waaw wala déet. damay dëggal ne moo amul jën ji gi ginnaaw bi mu ay mesures de gestion dañuy respecté ku nekk ay mesures de def li nga xamante ne moom préservation des ressources. naka la ñu mën a def pour euh, jiboole euh, euh, pêcheuru Kayar yi ak yu Mboro yi parce que li jot a xew si diggante bi nekk na lu doy waar pour yow lu siy solution. waaw li siy solution d'abord mooy. sable parce que li ma doon wax rek guerre mondiale sable la mujj waaye ginnaaw bu ñu dajee sable tam état du Sénégal jël ay responsabilité ci règlement yi nga xamante état bi jël na ko pour gestion de la ressource ñu appliqué ko ci ñëpp ba pare ñoom ñu jël seen engagement pour contrôler ko parce que ça sert à rien ñu teg ay règles yoo xamante ne état bi mboo préwul pour pour pour pour pour gunge ñi nga xamante ñoo koy appliqué beneen bi nga xamante aussi def nañ ko mooy ñoo xam ni ay mbokk lañu aussi tey boo demee Mboro la fa ay waa Kayar fay sëy kenn xamul nu toll mhm. Kayar gi ñu fi am ay borom kër yi dëkk kenn xamul nu toll mais nag ñi nga xamante te ma fàttali leen problème yi di am ni ñi koy indi ñëpp motuñu vingt personnes te ñi nga xamante ne ñoo nekk ci lu dul yoon mu xamal leen li ngeen nekkee yoon mais aussi taxaw ci ñu seraat dèjà xamante ne ñoom ñoom à chaque fois buñ ko seree ñoom waa Mboro ñu ñu ñu diigal ko ngir dañ limite yi fës beneen bi ci des mooy euh, ñu teg euh, dispositif de surveillance boo xamante ni au moins dina mën a réglementer li nga xamante ne si moom la ñuy def ba kenn du ci tooñ sa morom. Euh, ñu gis ne tamit ñu ngi wax ni dañuy indemniser pêcheurs yu Guet Ndar yi nga xamante ne aussi jot nañoo yàqule si mbir mi loo si xalaat yow Mor waaw loolu dama koy rafetlu parce que tamit mool moom bu gisee moromam moolam mu am yàqu la ñu di ko dimbali da bu bu fekkente ne mool dëgg la da koy am mbégte mais nag dama ñu loo ñu jeg bañ kaa yemalee ndar parce que li tax nit nekkul moo leen daal rek ñooy yàqule wax naa léegi ni la man personnellement rek am na sama ñaari gaal nañ te ba mu jeex mhm. euh, daal sama station euh, seka seka mhm. station carburant beneen bi ci des mooy tey ji ni kayaar li fi yàqu si matériel boo demee la teer mboor ka sa nga xam waa mboor ñoo koy ba mboor taal ka fa rek mhm. rek c'est plus de deux cent millions léegi nag ak ñaata gaal lañ taal kayaar site de transformation bu femme transformatrice ñu saccagé loolu lépp lépp lépp tey ji nii euh, bu fekkee ne état dafa ji parce que république la mm. te jëlul xaalisu mairie ndar pour dimbali waa ndar comme xaalisu Sénégal sa la a dimbali waa ndar mooy généraliser que ba muy ndar bi Kayaar bi Mboro képp ku fi jàppale ñu ñu la loolu moom mooy transparence mm-hmm. yow daa gis nga ni waruñoo yam si indemniser euh, pêcheurs Guet Ndar yi mais war nañ koy généraliser muy yéen waa Kayar ak ta aussi waa Mboro yi. mais lool moom mooy yoon parce que tamit xaalis bi ñuy jël di koy di koy war kaa dimbalee mais waa Ndar ak waa Kayar ñoo ci bokk yam même su waa ndara waa Kayaar ñoo jëmbat sa xaalis Sénégal la comme xaalis Sénégal la te doomi Sénégal la ñoo amoon ay jafe-jafe mm. ba am ñu si yàqule waruñoo jël bii doom euh, boot beneen doom bi ñu wéq fële loolu warut a mën a nekk mm. te réew réew mu normal yéen waa Kayaar lu lu si ñaata ngeen yàqule Mor Mbengue mm, damay moom laa la wax léegi dama la ne mënuma kaa xayma actuellement parce que ñu ngi def xayma yi te prégode mais li mu wér bu wóor mooy quatre cent millions waaw dama ni boo la ñu yàqule te c'est de transformation ba bokk ci. lan la ñu mën a def pour sauver pêche bi fii ci réew mi parce que jafe-jafe yi jëm ci wàllum napp gi bari euh, pour yow tey jii naka la ñu mën a uh, maanaam sauver napp gi waaw surtout yéen ñi nga xam si ngeen di dund waaw. pour ñu sauver napp gi li ñu war a njëkk a def d' abord moom mooy appliquer li ne ci code de la pêche parce que code bi euh, Sénégal dañu def ay études yu xóot xool ni Sénégal napp gi pour mu dox il faut ñu def lii il faut ñu def lii pour napp gi dox pour napp gi dox code boobu noonu nag eh, ay nit ñoo ko defar te nit ñi ko defar ay borom code bi daa koo xamante ne jal jal yoon tegu ci sa accord euh, dernière question ma bi nekk Kayar est ce que li ngeen bëggoon ci usine boobu am ngeen ko waaw wala euh, euh, comme mbiru justice la te Euh, mi ngi ci ci yoon juste a à tranché gul complètement euh, loolu ñu naan mi ngi en cours kon dèjà ñun li ñu xaaral mooy décision finale bu justice wala ñuy joxe suñu position ci li nga xamante ni moom mooy xeex bi mais di gën a ni tey ji leen gën a taxaw fi ñu taxawoon ci ñàkk a d'accord ci usine boobu nga xamante ni si day bokk ci li faagaagal euh, alam bi mais aussi li faagaagal li nga xamante ni moom mooy gestion de la ressource voilà euh, Mor Mbengue kon maa ngi lay remercier bu baax a baax. ci euh, voilà nangu ngi ñu may fàttali ni euh, yow yaay coordonnateur bu conseil local des pêches artisanales de Kayar.